salaamaaleykum am internet salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo la chaîne Equivox TV dal leen ak jàmm te ñu am mbégte dalal kooku nga xamante ni moo di taalibe Serigne Saliou bi borom njurul borom jàppandal borom dooka sangub Cheikh Béthio Thioune kooku moo l'animateur le plus fashion Padros ñu ngi char. ñu ngi lay delloo char Abdou am fierté mhm. tey ci dalal bi ñu ma dalal ci Equivox TV. Mhm. di am fierté ak mbegte di jàkkaarloog seen i téléspectateurs. Mhm. waaye aussi euh, di nuyu seen personnel bi nga xam ne yéen a yéen ànd. Mhm. Euh, particulièrement sama xarit euh, El Hadj ñu yàgg ah moom ñu dund lu bari ci média. voilà ñu partagé lu bari bare bari bari ci média. donc tey Mm-hmm. bu nu demee ba gis muy àndandoo ak yéen di liggéey. Mm-hmm. liggéey bu am solo bi ci Equivox. Mm-hmm. donc ñu ngi koy féliciter. di ko encourager waaye aussi yow di la encourager. merci beaucoup di rafetlu liggéey bu rafet bi nga ci liggéey. waaye di rafetlu engagement bi nga xamante ne actuellement. yaa ngi koy def ci euh, ci liggéey bi. parce que liggéey bi dafa laaj engagement. te gis nañ ni en tant que jeune. yaa ngi ci. engagement boobu ak lancé bi quoi. Mhm. merci beaucoup merci beaucoup. Euh, ginnaaw bi ñu nuyoo Padros Mbaye euh, ñu bëgg la euh, laaj tuuti ci li nga xamante ni maanaam par exemple mooy métier bi nga xamante ni moo nga yëngu ku nekk xam na ni animateur métier boo xamante la métier bu noble la mais dañu gis ni temps yi dafa bëri ay coow trop trop trop Padros milieu bi lan moo tax yooyu ci am. waaw xam nga liggéey bi nag dafa ànd ak coow. Mhm. parce que li wolof Njaay naan oto bi jiitu ci kanam moom la ñuy corné. Mhm. te liggéey bi dafa nekk li jiitu ci kanam. xam nga liggéey yëpp liggéey la. Mhm. Euh, maçon bi. Mhm. xam nga kenn wu ko. dëgg la parce que nekkul ci kanam di wax. Mhm. Euh, soudeur bi kenn korne wu ko. parce que doo ko gis au devant muy wax. mais lii nga xam ne moom moo di média ak bis moo ànd ak coow. voilà. Padros mm. nga. tuddee sa bopp xaw ma sénégalais yi ñoo la tuddee l' animateur le plus fashion mhm. am ci ñoo xamante ni par exemple fashion boobu lañ jël mhm. mais Padros en tant que animateur mhm. lan ngay euh, yëg par exemple su su su su milieu bi demee nii par exemple mu mel ni gars yi dañuy dañuy lekkante seen biir waaw man nag xam nga baat bi may ëpp li may dégg mooy l' animateur du peuple l' animateur du peuple mën naa ni sax bi ñu may wax l' animateur du peuple dégg gun ko quoi ci réew mi kon kon Waly si yow la sàcc. non non non <laughs> mhm. ci waxu Waly. Mhm. Euh, waxuñu ci waxu kenn. Mhm. man bi nu may wax l'animateur du peuple. boobu waxaguñu ko kenn. ok ñu koy dégg. pourquoi parce que nag peut-être euh, Sénégal ñoo xool liggéeyu Padros. c'est-à-dire ni mu koy defee. teg ci yoon bi mu koy teg ci yoon. jiitalul succès. jiitalul euh, jiitalul. c'est-à-dire euh, célébrité. Mhm. jiitalul dara à la base fi mu teg liggéey mooy liggéey ko professionnellement. Mhm. ba Sénégalais di apprécier. Mhm. donc man foofu lay déggee l'animateur du peuple. par la suite ci laay dégg diw du peuple diw du peuple. te bi ma demee ba dégg Wally Seck le chanteur du peuple dama am fierté. voilà parce que damaa gis sama bopp ci moom. selon li muy liggéey dignement pour le peuple sénégalais. ba le peuple sénégalais ni ko yow yaay le chanteur du peuple. voilà voilà tey ñu am ay jeunes yoo xamante ni dañ leen di gis ñu bëgg mel nii yéen maanaam nekk ci yoon bi di dox. Mhm. est-ce que tey Padros mu ngi tendre euh, la main yéen jeunes yi nga xamante ne par exemple bëgg nañ mel ni ko moom. bari na mhm. na du ma dégg ku dégg li ma wax nii da nga naan ma dëgg la. Mhm. guleet du pratiquement mën naa ni euh, animateurs yi ma fit tendre la main bari na. donc du ma bëgg di tudd tur du ma bëgg di. di ci sori. mi mhm. fii ci Sénégal. Mhm. ñi ma fi teg loxo man bari na parce que li may faral di wax naan mag ñi ñoo ma jàngal. Mhm. waaye man am naa xolu jàngal ndaw ñi. dëgg la te ndaw ñu ma doon jàngal man ak ñoom ñoo bokk même génération. yàlla moo dogal mën ma jiitu leen ci milieu bi. di def sama liggéey. ñu gis ni Padros mii kat moo nu jiitu. Mhm. am na nañu chance partage ak moom am nañu chance gisante ak moom. Mhm. pourquoi pas ma dem ci Padros te yàlla dogal nag boo ñëwee ci man fi ma la war a teg dama la fay teg ci yoon. Mhm. bu ma la waree encouragé ni la demal nga gëstu ji leneen nga doog a ñëw. dama koy def su ma gisee opportunité pour boole la ak moom dama koy def. su ma gisee ni wër naa la xëcc taf la ci sama wet pour rof la xam-xam. dama koy def parce que man noonu lañ ma def. mag ñee ma jàngal grand yi. am lu ñu def ci man mhm. mu doon fierté tey nag bu ma demee ba ndaw ñu ñu ci bare bare bare bari di yaakaar ci Padros mhm. donc dama leen koy delloo mhm. maa ngi nii maa ngi sama quatorze ans de carrière waaye quatorze ans de carrière boo xoolee sept ans yëpp dama ko tarbiyu sept ans yoo xamante ne waxuma ci télé waxuma ci rajo expérience laay jàng tey ni ma mel ba Sénégal ñëpp xam ni Padros mi rek la ñu gis ni mooy def liggéeyam. sans mu boole ci lenn loo xam ne bokk. Mhm. c'est parce que expérience bi jiitu sans bopp moom mhm. sonal. Mhm. expérience nag bu la sonalee day tax doo bëgg def lenn loo xam ne day nekk anarchie. c'est-à-dire hiérarchie bu amul rek anarchie dafay ñëw. mais ci 14 ans de carrière yooyu nga def Padros ñu gis ni à chaque année Sénégal euh, dañuy euh, jël meilleur animateur genre yu mel noonu. est-ce que Padros mës na am titre boo xamante ni animation moo ko Euh, déggu na fi ni Padros jël na meilleur animateur de l'année mhm. waaye ci ay euh, association donc yi nga xamante ne dañu koy dañu ñoom dañuy créer ay association nit ñi nga xam ne dañuy créer ay association mhm. fii ci Sénégal mhm. euh, créer ay mouvement dañuy toog ba mu neex leen ñu rendre hommage donc nag mën nañu ñëw nii Padros yow la ñu def ren ci banlieue bi animateur bi nga xam ne tey moom mooy doon référence meilleur animateur de l'année jot naa ko plusieurs fois Euh, mën nañu gis benn association bu ñëw gis la ni Padros ñun kat suñu mouvement bi. Mhm. nee nañu yow yaay meilleur animateur de l'année. Mhm. mais loo xamante ni defee nañu ko fan ko war a defee. Mhm. titré ko fan ko war a titré. bu ma déggee ba dégg de jël naa troisième meilleur animateur télé. en deux mille quinze. en deux mille quinze. troisième meilleur animateur télé en deux mille quinze. Euh, boobu euh, Boub Sow la woon Pape Cheikh après Padros. après Padros. dégg naa fi plusieurs fois. donc ay troisième aire animateur rajo deuxième aire animateur rajo mais yooyu intéressé wu ma. Mhm. voilà mhm. rajo yooyu sax yàlla def na ni musuma ko jëli ji bi nu may wax troisième meilleur animateur télé en 2015 boobu euh, maa ngi woon Walf Fadjri samedi soir la tombé loon ñu ngi waroon defee cérémonie bi euh, fële euh, théâtre national dañu Sorano mhm. ni ma waroon fekk télé en direct donc man dew ma woon sax assister affaire bi à la base bañ ma woon nag Euh, sama liggéey moom moo tënkoon. ok mais Padros nekk gi mu nekk ci ginnaaw euh, le grand patron ñu koy nuyu bu baax a baax le grand euh, Boubacar Diallo. Mhm. nekk gi nga nekk ci ci ginnaawam lan la lay def dafa la gën a yokk fii wala parce que Padros. Mhm. au début bi ngay nekk ci ci ci ci rajo bi Padros bon il était calme mën nañ mën nañ wax mais maintenant Padros léegi dafa dafa dafa nekk ci biir milieu bi bu baax a baax. non waaw da nga wax noonu pour rafetal <laughs> mais Padros à l'époque avant mhm. bi mu nekk ci affaire yi dafa nekkoon benn gaan bu fi nekkoon rek di perturbé di perturbé voilà benn mhm. gaan bu fi nekk di perturbé mhm. donc xamul affaire de professionnalisme ok xamul dara quoi donc day ñëw rek wax ni mu ko sentiree noonu lay waxee à la rajo li mu bëgg wax loolu lay bëgg wax xamul ba xam wax bii la ñu war a wax rajo wala xame wala xamewu ko buzz sama yoon nekk ci ay succès crëb crëb donc dama doon ñëw di wax ci rajo ci télévision nu ma neexee mais bi ma yàlla dimbalee ba boolee maag ku mel ni DJ Boubs mhm. dama naan ci la nekkee ci man mhm. j'étais animateur avant mhm. mais animateur bu professionnel jàpp ni lépp looy def donc ko war a def professionnellement donc attends à la radio tu fais la radio à la télé tu fais la télé fu mu mënti doon même su fekkee maa ngi toog nii sax di wax ak site internet comme télévision bi ma toog nii attends je fais la télé amul dara loo xamante ni yaa ngi koy def sa image di ca bokk te doo ko respecté comme ni nga ko war a respecté. Mhm. noonu la ma yàlla dimbalee nag bi ma jegee Goups donc expérience boobu gën ma gën ma gën a nekk ci man. Mhm. loolu dama ko ci sante di ko ci gërëmee bu baax a baax. Mhm. lan moo tax ici au Sénégal animateurs yi boole wuñ doon benn maanaam tey animateur boo ci dégg buy anime day bàkku wane boppam ni moom moo fi mën mm-hmm. est-ce que te bon ñu ci baree bëri ah loolu la ñuy def animateurs yu ci bëri la ñuy bàkku di wane ñoom ñoo fi nekk mm-hmm. da leen di jaral sax ba bu ñuy animé si ñoom da nga koy yëg seeni i biir voix mm-hmm. est-ce que tey Padros yoon la ci milieu bi tey par exemple mu am yenn affaire yooyu noonu di nga xamante moom la ñu gis ci milieu bi mais loolu c'est normal loolu bokk ci showbiz te dafa ci euh, télévision ak waaw taxaw di bàkku daf cee bokk waaye bu mu doon bàkk boo xamee danga koy cest à tàmm mhm. di ko wax à tout moment mhm. parce que loo tàmm di wax ci nopp nit ñi bu yàggee da leen di soof da leen di soof dëgg la te yaakaar naa ngay liggéey ñuy gis mhm. moo ëpp solo ngay wax ñuy dégg wax fayul dara liggéey mooy fay euh, yàlla dimbali na ma teel naa dugg ci millier bi mais du ma kenn détrôné gu ma naa waaw du ma ne kenn détrôné na ma. kon bi nga sampoo ba léegi gars yi sempee guñ la. déggoo li ma la man bi ma fi nekk moo gënoon bi may doogee ñëw moo gënoon metti mhm. nee la boobu grand yi ñoo fi nekk. ñoo fi nekk nga ñëw di nga ñëw di. ma ñëw ba fexe bokk ci ñoom. ba fexe bokk ci ñoom nga nga parce que bu ma déggee sànq sa biir wax yaa ngi ni jël nga troisième maire animateur. ci ka télé. foofu Boubacar jàll moo fi nekkoon ak Pape Cheikh Diallo. Mhm. donc Padros kon yow li lii nga def nii loo xamante da nga ko fighting la. mais mooy li ma la wax ni la mhm. expérience bi def naa ko sept ans avant dugg di intégré ci télévision ak rajo. Mhm. dama topp ci ginnaaw télé. Mhm. ak rajo di jàng xam-xam. Mhm. xam-xam boobu moo tax bi ma ñëwee après dama respecté les normes. di def samay liggéey professionnellement. di liggéey professionnellement. di ko teg ci yoon jiitalu ma dama war a ñëw rek ñu xam ma. jiitalu ma non attends tey dama war a wax ci rajo bi te li ma war a wax ci rajo bi non attends il faut ñu reprendre ko def ko buum quoi. non non non man loolu nekkul ci sama sama bopp. man li ma jiital mooy professionnalisme. te jeunes ñi fi ñëw ci diggante bi ñëpp gàllu ci sama dodd lii ma mhm. sol leen expérience sol leen mhm. sol leen ay conseil conseil yooyu tey dimbali na leen mhm. parce que moo leen def li ñu doon tey fierté la ci man dëgg la waaw fierté bu rëy a rëy ci man Padros milieu bi en dehors de l' animation ñu gis ni mbalax maan yi temps yi dañu rakkaaju on voit Sidi Diop fii Wally Seck fële hier avant-hier on a vu Tarba Mbaye mu génn génne benn son boo xamante ni par exemple euh, mi ngi ci clash yenn euh, benn waykat genre euh, Padros est-ce que tey lan moo nekk position animateur bi par rapport ak ki nga xamante ni mooy musicien bi est-ce que animateur bi am na fu mu war a far ba tey par exemple fan sa beneen fan sa beneen waykat bi di gis boppam ci li nga xamante du gis boppam ci li nga xamante moom la animateur bi di def. c'est pas normal. Mm-hmm. un animateur doit être mm-hmm. un animateur. doit être quelqu'un koo xamee mooy fexe ba li jaxasoo woon booloo doon benn mhm. tey bu réeroo amee mhm. ci liggéey bi ñuy liggéey mhm. muy showbiz ñun animateurs yi ci kenn ci ñun wër na fexe ba déggoo am ci benn message bi nga jël di ko véhiculer amul benn droit di farandoo kenn mhm. amul benn droit di féete kenn mhm. parce que da nga fi nekk pour le peuple sénégalais mhm. nekkoo fi pour le chanteur bi nga xamee moom nga teg morsoom pour promouvoir ko dëgg su fekkee chanteur boobu daf la woo nag fay la xaalis ni la kaay nga liggéeyal ma da fi nekk pour moom liggéeyal bi nag ak condition mooy que da nga may ñëw présenter sama concert mooy da may ñëw defal ma sama publicité mooy da may defal plateau spécial man ak yow pour ma promouvoir sama album. Mhm. dinaa ko jaay ba àdduna bi yëpp xam ni jaay naa la. Mhm. waaye amoo benn droit artist bi tege taxaw artiste bi taxaw ngay féetee benn boor. Mhm. rôle animateur. mais ci ci ci ci diggante Sidi Wali ba mbay loolu rôle Padros. Euh, tout d'abord damay wax ci liggéey bi ñuy def actuellement. loolu mooy showbiz. loolu mooy neexal showbiz. Mhm. loolu mooy jaay seen liggéey. Mhm. loolu mooy tax ñu xam ni ñii kat ñi ngi def ay affaire ñi ngi mhm. def ay affaire loolu dafa ci showbiz. quant ci li nga wax léegi affaire bi show Waly euh, Tarba c'est très normal. amul kenn ku def lu mu wër def. ci ñoom ñett ñëpp. Wally def na li mu war a def. Mhm. Sidi ñëw def li mu war a def. Mhm. Tarba Mbaye ñëw def li mu war a def am na keneen ku war a ñëwaat dana ko bàyyi xel <laughs> te dafa war a ñëw. Mhm. def li mu war a def. parce que benn amul kenn ku papaam moom musique bi. dëgg la amul kenn ku yaayam moom musique bi. ñun ñoom ñëpp dañoo jug pour ut lu ñu dugal seen poos waaye kenn ku ci nekk di nga xool sa marché naka nga koy doxalee. dëgg kenn ku ci nekk di nga xool sa stratégie de travail naka nga koy def pour promouvoir sa loolu nag yaakaar naa warul nekk benn souci boo xam ne Sénégal yi dañ ko war a jël def ko polémique mhm. dëgg la nag farandoo am na mhm. je suis d'accord mhm. ñi faral waali waali lanu ñu faral bëgguñu kenn ku ko laal te te kenn du ko kenn du ko laal parce que loolu mooy farandoo nit boo faree ci sa nit da ngay taxaw nga jël sa bakkan bi teg ko ku laal sama yëf dama lay ñi farandoog Sidi dañuy ñëw taxaw jaay seen bakkan même bu fekkee Sidi produit la bi gën a bon ci àdduna dañuy ñëw taxaw ñee laal sama produit mhm. sama produit sama produit la mhm. loo xalaat ci conseil loo xalaat ci promouvoir di nga ko def ci moom mhm. ñi farandoog Tarba Wareefa ñi farandoog El Hadj Keita ñi farandoog Mbanjaay Seck ñi farandoog keneen ak keneen ak keneen kenn ku ci nekk ak sa artiste te sa artiste da nga koy promouvoir dëgg la kantaan nag ci problème bi nga xam ne am na amuma pour wax ni Waali moo tooñ wala Sidi moo tooñ wala Tarba Mbaay moo tooñ tooñ amu fi ku jàpp ne affaire de tooñ nga ndax nga sa bopp dëgg la showbiz la. showbiz la. voilà showbiz la c'est-à-dire mooy liggéey. Mm-hmm. avant à l'époque euh, lu ne am na fii ci ay problème entre Youssou Ndour Omar Pène euh, Thione Seck. Mm-hmm. ñun fekkee wuñu waaye dégg nañ jaloore yi. Mm-hmm. ba tey jii jaloore yi man mun naa la toog di la ko expliquer benn par benn day mel ni que man maa ñëwoon fekkee problème yi. maa ñëwoon di détailler parce que dama ko dem gëstu ji. kon nag mën nañu ni sax problème yu mel noonu xaaj xaajaat bi amagu fi. Mhm. Fadros animateur yi est-ce que wàcc ñu seen yoon maanaam ci jamono bi nga xamante ni Sénégal mi ngi dund situation yu métti maanaam coronavirus ñu gis ni des fois étudiants yi dañuy dañuy nekk fii di di xeex ak policiers yi ñu gis tolof tolof yi nga xamante ni moom la société bi di dund. Mhm. animateurs yi des fois seen tekki tekkaaral est-ce que yoon la mhm. face ak situation yi nga xamante ni moom la la société di dund est-ce que tey jotul animateur bi di teg. ay son yu nga xamante ni par exemple lu fi lu fi yeete luy yeete Youssou Ndour way na ko luy yeete Thione Seck way na ko luy yeete Omar Pène way na ko est-ce que animateurs yi jotul des ñu jël ay journée yu nga xamante ni wala par exemple semaine boo xamante ni tey dañuy teg des sons uniquement pour delloo si waat nit ñi seen xel mais est-ce que topp ambiance bi tout simplement c'est ça l'animation animateur sénégalais yi mhm. xasuma quoi mhm. je dis la vérité mhm. xasuma te ku ne xam ne ni Padros kenn xamee wu ko wax bu ñaaw wax bu ma wax day defar Euh, xaaj bi yëpp kenn liggéeyu ci <laughs> je dis la vérité. Mhm. c'est-à-dire ba ci man sax dama ci boole sama bopp. Mhm. mais xaaj bi yëpp. Mhm. kenn liggéeyu ci. le pourquoi. parce que télévision ak rajo moo dem ba toll fenn. fi mu toll mooy coow li coow li lañuy ñuy soxla. ak wax ju bari. te loolu tax na tey suñu réew di gën a dellu ginnaaw. nit ki mën nga ko di bégal di wax ak moom. di communiquer mm-hmm. di lancer ay message mm-hmm. ci biir ci sa biir animation mm-hmm. waaye ku toog tey à la rajo lenn ngay jiital ok ak wax ju bari ku toog à la télé lenn ngay jiital ak wax ju bari wane sañse wane dàll wane casquette màcc tuñ donc à la base loolu la jiital loolu yëpp ci animateur la bokk waaye téléspectateur bi lay seetaan mhm. balaa mu laa njëkk a naw mhm. da lay déglu mhm. xool ba xam yow mii mën nga def ci boppam dara dëgg la auditeur bi lay déglu da déglu xool ba xam yow mën nga def ci boppam dara bu xoolee yooyu yëpp ba pare xam ni kii mën na def ci sama bopp dara donc day toog nag xool ki ban genre animateur la de ni ngay gesticuler de part ni ngay waxee ak respect bi ngay def mu xam ni kii kat non ku xam li muy def la ku mën li muy def nag solo bi doogee ñëw bu la neexee nga sañse lu la bu la neex nga tegale tànk mhm. bu neex nga màcc mhm. mais la loolu nekk ci sa bopp ba pare nga jiital ko ci kanam téléspectateur bi mhm. wan ko ni ko man tey damaa ñëw pour dindi sa stress waaye pour gindi la ci àddina tey nag suñu animateur yu bari euh, suñu ay waykat nag yóbbaale na leen ba xamatuñu seen liggéey ngay gis animateur bu toog rajo benn waykat lay teg ba ba muy jeex jël benn way rek boucler ko fa yuuxu ba animation bi jeex. mais est-ce que du loolu la jàng ñoom. gis benn animateur non pourtant mën nañ bañ jàng loola ah. mais jamono bi moo leen yóbbaale. Mhm. buzz ak alal. ok voilà donc ñu soxla coow li coow li parce que dem naa ànd ak euh, Sidi Diop. Sidi mhm. Diop mooy coow li. Mhm. parce que dem na ànd ak Wally Seck parce que Wally Seck mooy coow li. parce que dem naa ànd ak Pape Diouf parce que Pape Diouf mooy bi ni mu amee carrière am di ko promouvoir. noonu nga amee sa carrière di ko promouvoir. artiste bi ni muy defee studio di liggéey di def album di fayeeku mhm. yow noonu ngay toogee di béggal àdduna bi yëpp mhm. di fayeeku kon nag yaakaar naa waroo fi nekk pour kenn mhm. wala waroo fi nekk pour euh, affaire de yaama neex man quand je suis à la rajo doo ma bu ma nekkee à la rajo doo ma beneen doomu adama la gaynde lay doon su ma nekkee à la rajo non da nga naan non kii kii lan la quoi su ma nekkee à rajo benn lu lu jëm ci bégal rek da nga koy yëg automatiquement quoi. Mhm. quand je parle nga xam ne kii daf may gindiwaat ci sama àdduna. Mhm. su ma tegee morceau rek waxatuñ ko. Mhm. jaay ma so sama bopp. je dis la vérité. te li may wax ni ñu ñu bari xam nañu ko. Padros milieu bi metti loola ah. Euh, mm-hmm. mu mel ni dañu nekk arène national maanaam gis Modou Lo ak Balla Gaye bi bëri bëri mystique bi bëri lool ah. Mm-hmm. que Sénégalais yi ñàkk koo xam euh, que ñu bañ ko xam mystique bi bari lool am ci animateur yoo xamante ne bi ñu fiy nekk autant tey da ngay jékki-jékki dem pour toog wax nga am problème mu baat. Mm-hmm. wala nga dem pour pour pour bëgg a liggéey nga nga muuma est-ce que tey yooyu noonu di di dal ñeen animateur est-ce que mas na dal Padros Bay. maa leen gën a gëm mystique maa leen gën gëm mystique kuy gëm mystique. man maa la gën a gëm mystique. dégguma la de. je dis la vérité. Mhm. du ma waxantu man damay wax sama wax mu leer du ma wax pour buzz. Mhm. du ma wax pour ay affaire ak yooyu mais dama lay wax ni la maa la gën a gëm mystique. ok bu doon mystique day fuuf fuufaate. Mhm. fuuf na ma bu yàgg. ñi ko gëmee noonu laa ko gëmee. parce que dañoo judd fekk ko fi. Serigne fàllu nee Fallaw bu sa jaxaree ba ca ma dem a kunta. bàyyi sëriñ Abdou ku xeeb xar fa xuuf xar fa xuuf ni la fuuf. dëgg la. ngay toog junni nit di wax ak yow. Mhm. ngay wax ak ñoom. Mhm. ngay taxaw di jàkkaarloog ay doomu aadama. Mhm. da ngay fagaru parce que xàmmee yàlla moo bindi doomu aadama bindi jinne bindi rab. te xàmme woo ñan nga ci waxal yaa ngi toog bis bu jot di saafonteeg ay jinne te xamoo leen yaa ngi toog bis bu jot di saafonteeg ñoo xamante ni ñoom leneen lañu te xamoo doomu aadama bi nga xamante ni xelam dafa ñaaw nag mu jug pour sa say tànk maa la gën a gëm mystique man fees dell damay takk ba mu dëgër damay sangu ba set wicci. baa du yaa raw guy gi non non pas ay affaire maa raw guy gi. mais je mhm. dis la vérité. Mhm. parce que ni ma ko gëmee laa bëgg nga gëmee ko noonu du ma def quoi que ce soit doomu adama mhm. mu ma ci nit salaamaaleykum mais maa la gën a gëm sama ndey ñaanal na ma fa ma war a ñaanalee sama baay ñaanal na ma fa ma war a sama yaay ñaanam laa gën a fonk ci àddina mais moom moo naa ma hé sama ñaan la day tànk ndox mu def nii ñaanti ni ma am duggal ci duus bi sangu léegi ma ñaan ma léegi loolu rek am na lu mu ma gëmloo. Mhm. voilà donc sa loolu rek bu ko defoon doy na sëg muy dugg tànk ci ndox mi naan ni ma suuf duggal ci douche bi sangu. Mhm. bu may sangoo loolu saa laay gën a kontaan. Mhm. parce que sama yaay la kooku. mais mystique bu ma ko joxee damay takk damay solo damay naan. parce que damaa jàng alxuraan. macha allah voilà macha allah euh, Padros situation réew mi ak coronavirus lan moo ci taxawaayu animateur bi. communiquer. wax ci li mu ci wër a wax. ngir ñu jot ko. Mhm. askan wi jot ko. Mhm. parce que euh, ministère de la santé et de l'action sociale. Mhm. ñu ngi bëgg a ah. fajar gu jot ñu génn joxe bilan du jour. wax ni tolluwaayu feebar bi fii la affaire bi di gën a am doole. di sensibiliser askanu Sénégal yi. te Sénégal yi dégluwun loolu. boo xoolee ministère bi bi mu daan génn à l'avant euh, euh, bu yàgg ba. Euh, ci réseaux sociaux yi da gis nombre de vues day dëkk xaw ma ay ñaata mille de vues. Mhm. léegi ministère de la santé bu ñu génnee sax pour joxe point du jour. Mhm. duna am sax cent cent mhm. vues. léegi nag loolu pour sénégalais yi ñoo leen déglootul. léegi nag ñun ñi ñuy déglu ñun na ñuy déglu ji ministère après ñu jottali ko askan wi. pour xamal leen dayo feebar bi. xamal leen feebar bi fi mu toll. mooy li ma doon wax sànq. nit ki mën ngay foog moom di kaf ak moom di moom. ba di ko gindi ci àddina. ba pare wax ak moom ci àddina. c'est très important. Padros ak yeneen animateurs yi fi nekk ban link la am ak ñoom. ñëpp nice ñi ci seq ak man jàmm maa seq ñoom jàmm man maa nekk seul animateur boo xam ne awma kenn xaar ma yàlla xanaa yow nga am ak xaar ma yàlla ak man. Mhm. yow nga am xaar ma yàlla ak man. mindeef mhm. xaar ma yàlla. ñëpp jàmm ak salaam laa séq ak ñoom. Mhm. boo séq ak man jàmm séq koog yow jàmm. boo mu woowee téléphone dama lay wuyu su ma la amee envie woo la téléphone pour wax la dama la koy wax mhm. su fekkee maa ngi lay déranger loolu déranger wu ma man mhm. te du ma mës a taxaw sa kanam di la wan ne eh, man man mi dama lay déranger mhm. je fais ma dem quoi c'est tout Padros lan ngay tàggatoog Sénégal yi ak fans yi nga xamante ni ñoo lay déglu ci Equivox TV sant leen gërëm leen te di leen wax ñi leen ndaw ñi ñoo ëppal njëriñ plus souvent sama ay message ci ñoom dama gëm ndaw buy liggéey Mhm. dama gëm jeune bu gëm boppam mhm. dama gëm jeune bu gëm boppam ci benn côté mhm. mooy nga jàpp ci benn affaire musu la jox dara nga gëm ni allah kulli xaal dina la fa nga nekk ci benn affaire musu la yóbbu fenn nga gëm ni allah kulli xaal yóbbu fenn nga nekk ci benn affaire mu tar lool la élage mii nga àndal moom xam na kan mooy Parxos maak moom pendant des années partagé nañu ko Africa set di liggéey ci benn instant mu metti man ak moom moom xam na li may wax gëwuma dara mhm. gëwuma alal mhm. gëwuma c'est-à-dire bët man mhm. dara yóbbul sama bët billaahi wallahi wa amul mindeef bu ni ma kii alal fëkk na bëtam wala dara yóbbu na ko je travaille nag pour l'argent pour dimbali samay bokk samay waay jur ak samay am di jàmm ngëm-ngëm gi ma am mhm. ci sama liggéey mhm. min def amu ko mhm. dama gëm sama liggéey ku ma ko nar a yàqal ma écarté la dëgg la yow Abdou Saliou li ngay doon doon sama xarit ba ma ñëwoon tey pour yàqal ma ma effacé la sama laay ma effacé la carrément donc nag gëmal sa bopp gëm sa liggéey def li nga war a def bu la kenn échappé voilà euh, ma ma sànni ci tuuti ci li mu wax parce que man bi may xamanteeg moom yaakaar naa marché Dior la ci salon wu Paco Coiffure euh, ñu xamante mu jox ma numéro mu doon nit koo xamante ne nit ku humble la mm-hmm. macha allah bi mu njëkkee dégg may def audio di animé dani ma mm-hmm. Abdou Salou tu as du talent mm-hmm. yaakaar naa loolu nit ku soxor du ko def kon grand ñu ngi lay ñaanal jàmm euh, yàlla suñu borom gën bi euh, ndax man nga bokk Serigne Saliou donc du na yàlla defal jàmm ju bare bari te nga nekk aussi tamit yàlla nga ci dem ba am ci raaye bu ci nit musul am ci barke Serigne Saliou amiin amiin mbokki téléspectateurs yi. man la woon lay encouragé ah, bu lâché wu. <laughs> waaw parce que affaire bi ngi ci yow. Uh-huh. lépp mi ngi ci yow. Uh-huh. ce qui est important mooy nga am gëm-gëm. Uh-huh. te gëm-gëm googu gëm mi ngi ci yow. incha allahu rabbi li des mooy. nga xamal sénégalais yi. man seen doom laa. ñëw leen ngeen jàpp ci man. voilà tey sénégalais yi xam nañu loolu yaakaar naa. merci en tout waaw kon man la woon ak Padros Mbaye euh, nee naa la ñaari taalibe Serigne Saliou yooyu nga xamante ni dañoo bokk luñ mënta séddoo euh, di ko ñaanal jàmm ju bëree bari nag waaye moo du xulee sama man tey borom tuubaat Taïf shop moo defa teg man nii ne ma Abdou Salif booy seeti taalibe Serigne Salif bi mm-hmm. xam naa ni bu àggee koy fekk mu sañse mais damaa bëgg nga daaneel ko moo tax grand mayu ma la dara tey <laughs> ah mun ta ñàkk foog mu yóbbu la fa kooku moo di borom Touba Taïf Shop Pape Gueye numéro téléphone am c'est le 77 671 29 25 77 244 57 69 bu ngeen jokkoo ak moom nee naa la ay dàll yu baax lay jaay te Padros il faut que ma yóbbu la fa. maa ngi ci allahu rabbi kon di nuyu ko nga xamante ni euh, moo di euh, sama DG ko nga xamante ni moo di El Hadj. jànga baara gi noonu El c'est la siste maa ko baax a baax Ami Diouf Diouf a ñoo ko Baye Samba Modou Khoule